ci sabab buñ ko waxee muy bisub Sëriñ Tuubaa di bés boo xamante ne sëriñ yi taamu nañ ci ku ne di sant yàlla tey nag ñoo ngi fii ñu nekk waa TFM nekk fii nga xamante ne mooy kër sëriñ Sang Njaay taalibe sëriñ Saliou ñu bari miin nañ ko biir TFM ñu ñëwoon fii doon xool màggal gi ci bëccëg ba tey ñu ngi fii ak moom waaye fi mu nekk nii dama leen di moom rek ñu déglu ñu taataan ay kàddoom tuuti rek ci li nga xamante ne mooy màggalu sëriñ Tuubaa di fas yéene andi ay leeral bu baax si liy waral teewaayu ngir ñi fii ak ku ne di aajowoo sëriñ sang si ay leeral bu baax ndaxte suñu xam-xam si li mu màcc bëri na te li ñuy def itam lépp sëriñ Saliou Mbacke moo ñu ko defal ndax jaam yi di teew fii ngir ku nekk di sàkku lu faj sa aajo ndax itam bu leen fàtte sëriñ sang nitu daara la doomu daara la alxuraan la jàng tarbiyee sëriñ Saliou si kaw loolu itam ñu ngi wax dëgg yàlla di yaatal ba fépp mu fay daj nit ñu weex ñeeg ñëpp a ngi si ak nit ñu ñuul yi ndaxte liggéeyu Serigne Saliou moo mel noonu saa su ne rek dañuy indi ay leeral pour nit ñi mën see jëriñu ndax Serigne Sang li ko yàlla may bëri na xam-xamam si li mu màcc na mu ngi dimbale askan wi bu baax a baax fii si suñu kër képp koo xam ne aaju woon nañu rek. sàkkoo xam si yan anam la ñuy mën a gise bu ko defee dinañ si indi ay leeral bu baax ndaxte xëy na jot bëriwul waaye képp ku soxla sëriñ sang bañ a am jafe-jafe euh, mën naa sàkkoo xam si gan kër lañ ne wala sax mu woo ma téléphone si 77 439 16 00 wala 77 670 65 65 dinañu wax si wàllu xam-xamu faj parce que xam nañu si suñu xam-xam màcc na si. sëriñ sang am na yu ko yàlla may dina faj ko ku néew si wàllu sëy danañuy faj jabet ak yu ni mel comme nag dañoo xaw a xat jàpp damay tënk rek yu bëri du si sori trop bu ko defee képp koo xam ne nii rek aajo woon na yooyu nga xam ne moom la sëriñ sang def bu ko defee fii si Ndakaaru Géejawaay laay nekk PA yi forcément seet na jox Touba fii Ndamatou ñu dugg lool seetaas bi am kër yu bëre yëpp bu dee Sali Diaw bëgg a bañ a jafe-jafe rek na ma woo si sama téléphone 77 439 16 00 77 670 67 67 di wax ni rek comme nit ñi dañuy bëri ku nekk pour nga bañ a am jafe-jafe da ngay woote nga jël sa rajo waxtu wi lay wax nga jëm si nga teew si pour boo ñëwee kër Serigne Sam nga bañ a am jafe-jafe war nga bañ faa yàlla